maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu Senegal yëpp Sénégal àdduna ndër këpp di nuyu Sénégal diaspora Modou Modou Fatou Fatou magum Sénégal yi ndawu Sénégal ñëpp maa ngi leen nuyu yàlla defal leen jàmm defal na ko defal ko mboolum julit suñu leader Ousmane Sonko yàlla garanti ko sàmm ko aar ko dolli ko aar ndax mi ngi koy aar allah te day leen yokk ñaan yi nag day leen yokk ñaan yi kenn xamul gémm du am barke day leen yokk ñaan yi même ku dend ak xale bu ndaw sax ne ko waxal Ousmane Sonko yalla na am jam yalla nako yalla sam waxal senegal yalla na am yalla na yalla may jàmm nako yalla sam ndax xala yalla du delo ñaanam kon nak yalla na yalla defal jàmm suñu leader Ousmane Sonko ni yalla garanté yonte yalla Moussa ci nguur Firawna ba mu ko na yalla yàlla garanté Ousmane Sonko ba mu Macky Sall yalla am na mën nako ci yalla nako yalla ci sallallahu alaihi wa Muhammad di len nuy di len ziyara di len xamal ni macha allah euh, manifestation bi macha allah am na te yalla defal nañu ci doole te may nañu doole ndaxte ak peuple nag suba soo xëyam di manifester wu muy gën du yokk kon sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ala kulli xaal boobu peuple yàlla seetaanu ko boobu peuple yàlla tànkam lu ko. may wax nag euh, li may wax chaque jour patriotes yi nii la rek bu ñu taatee rek na gën a fees na gën a fees ndaxte ña ca kaso ba macha allah ay yaayu jàmbur ay baayu jàmbur ay nijaayu jàmbur fa ne te ñun ñu ngi xëy na ñu ngi añ te du ñu reer wala du ñu reeru du ñu añ mais buñu añu reeru tey gis sen njaboot sax neex na leen kon donc ñom ñi ci biir euh, ndax jamono ji nak jamono yi Macky Sall la jamono ji la nga xamantani euh ku dugg ci kasso bi yaay gor mhm. euh gor ñi lay duggal ci kasso bi ñi xexal sen réew bëgg sen réew bëgg sen mhm. askan ñu lay duggal ci kasso bi ñi bañ sen askan weddi sen askan weddi seen diine ñooñu lay may territoire yi na dox len fu len neex def len lu neex bu ma gis fu len laal euh, Sénégal nak alhamdoulillah rabbil alamin ala kulli hal ba xalé yi gisé yoonu ñub jeunes yi ñoo jël Sénégal daf ko am téye ko amee heureusement léegi nag il que mag ñi euh, ñu toppoon mag ñi yooyu léegi mag ñee ñuy topp si gis ngeen manifestation bi wane na ko ay màgget ay jigéen ay meer kol julli jumaa ba ñëw ba pare ñëw kon xeex bi yàlla dugal na ci loxoom comme mag yi mag yi ñu doon nax di leen jox ay vingt mille ñu yàq seen avenir doom tey rëccu nañ ko bay ñëw ci manifestation bi kon alhamdulilah rabbil alamin ala kulli haal di leen xamal na ngeen partagé bi partagé leen ko ndax euh, Ousmane Sonko dégg ne dégg naa yee yaay le 29 lañ koy woo parce que nemmeeku tuuram lañ bëgg a yàq daal nemmeeku tuuram nañ bëgg a yàq waaye alhamdulilahi rabbil alamin ala kulli haal ñaan na ngooti naa dama ni patriote yëpp fu waay mën a ne wàcc si leen Dakar patriote yëpp fu waay mën a ne wàcc si leen Dakar bu jaree dox di ñëw bu jaree daw di ñëw bu jaree esport di ñëw patur yep yep yep yep yep fu way mën Allah ne àll bi dëkk bi yep nañ wacc ci Dakar hmm. patur yep yep nañ wacc ci Dakar gis nga bu njëkk ba ni doomu aadama bare won ñu gatalu Ousmane hmm. Sonko duggal ko ci auto bi bii duñ leen ko may patriote yep nañ wacc ci Dakar limay wax chaque jour Ousmane Sonko képp ku ko wolu képp ku joxe ndigal hmm. jëndal sa perkal nga togalé ci Ousmane Sonko ma de képp ku ko wolu man duma magum xamoon naa ko de déedéet kon ma doon naa fekk magum waxoon naa ko laa dama ni Ousmane Sonko catu big ba ka signé joxe ne dem leen jëli ko wala ka signé joxe ne indil leen ma convocation dem leen jox ma convocation Ousmane Sonko ne jëndaale perkaalam teg ko toog ci te wallahi lazi laa ilaha illa huwa lu leer laa leen wax Ousmane Sonko képp ku ko woolu képp ku ko yónnelul convocation dem leen jëndi perkaal bi teg xam nga nee naa leen euh, yàlla mënta may nit ñëpp lépp xam nga ànd handicapé ak waay wàññiku yàlla may na ko xel boo taxawee mu wax la sa visage yàllaa leen ko may ndax yàlla mënu la xañ li mënu la xañ lépp foog mu may la lii ndax moo tax mu def buntu def parenteer moo tax ñu ne ku tëbul parenteer jàll ci buntu dama ni Ousmane Sonko li ñu bëgg ci moom li ñu bëgg ci moom duñ ko am déggoo ma de xam nga Ousmane Sonko fan yi lu ñu ko boolee hélicoptère mu di ko wër hélicoptère boobu lañ ko yónni gisu ko amu ko xam nga lu tax gis nga ñaan yi fi nekkoon téye noonu Seydina Muhammad salaa salaam gëlëmal ay noonu Seydina Muhammad salaa salaam yooyu ba tey ñu ci alxuraan ñu ngi koy ñaanal Ousmane Sonko déggu leen ma de ñaani yooyu ñu ngi koy ñaanal Ousmane Sonko Ousmane Sonko première génnam première boobu nañ vigé boole ko ay mercenaires pour ñu rey police yi rax ay tubab ñu kasse seen kanam yi ay ñuul <laughs> yalla du nit wallahi lazi la ilaha yalla du nit ñu boole ci ay tubab yalla wër leen par parmarin bi ñu demoon doon wut terrain diko wutal ay ay indien bëgg ko jël 5000 hectares ñu diko xex légui nak xamnañ ni amna ay tubab yi ñu rax di kasse seen kanam yi tubaab yi tubab yi na fang nak weer gis bokku ca sama sama kaddu mom pou bou bous la bo jale bo waxe gis samay kàddu du ma ne xamoon naa ko su ma nee xamoon naa ko lo xam dang koy wax so beug sa askan lo xam dang koy wax deug ray mi moma geuna fan ray ma ñuma koy may doon xooñu jaxanama dama ni Ousmane Sonko patriote bu len tit bu len ragal Ousmane Sonko kep ku ko wolu kep ku ne dim len joxe Ousmane Sonko convocation kep ku ne allo Omar Ba xam Diallo yëkkatul dossier Ousmane Sonko ak ko ko yóbbante ak ko ko wax ba mu yegg ca dama ni jënd leen seen juroom ñaari mètre percal ngeen toog te ngeen ne seen jabar yeen da ngeen ma tënc xam nga ku rep ci xalé lu mu jiñ xeeb ko ku xamoon la lay yor di nga bayyi li nga yor waye nak ndeysaan san firawuna ba mu ba mu xolé xol xamni ne toroxtaangeem na gëmul ne woon ko ci fekk gemul ne won de dina ko ci fekk ndax njabar katami musu ñuko wax ni di nga de bo bàyyiwul musa njabar yi parce que bu fatte ni bour ay dagam duñ ko wax mukkul ko nakari lu ko neex rek lu ko neex lolu nak mo koy duggal ci biir suuf Ousmane Sonko nak man titu ma ci ragaluma ko man mom pour ñu wo Ousmane Sonko pour ñu yëkkati dossier bi billahi yëngaluma lu tolli taraf tarafatal ay xeyna patriote nak amna ndaysan ñu bëgg Ousmane Sonko lool waye kenn gënuma ko bëgg mais ma parce que dama xam dossier bi lu muy jur li jural li jurel wa waxuñu jahannama dama ko xam degulay mu de Ousmane Sonko kep ko ko neub taj tej kaso waxuma la mom mu tej dele dama ni la di nga teju ci bi souf Ousmane Sonko kep ko yëgo yekati dossier bi di guuf man kay ma len wax li xam nga Ibrahima Gueye dafa ni kep ko tej Ousmane Sonko sa jaba dina dama ni Ousmane Sonko kep ko ko yekati keureum pour mu ñew wuy si mané ne sa perkaal très sa perkal nga dem wetri ci sàmm mbassa limay wax nak moy patriote yi le 29 lañ waxat ye yaay patriote yëpp na Dakar fest del del del del ba buntu teunge na fest sama gars patriote yëpp nañ tour ci Dakar na fest del del del del tan nak senegal sax dafa wara a tàqalikoog na dafa war a tàqalikoog nakar parce que Afrique ñëpp ngi yeewu ñëpp sama Sénégal sama gars Sénégal dafa yéex man yaayu askan bi dama doon wax muñ leen mais léegi gat sa gat sa nee ba sës gis nga suñu borom bi dafa déclaré guerre naa feq yi tawba tawba dafa guerre yi gis nga jullit bi boo solee sa mbugg jullit nga maslaa ci jullit ba sonn ñu lay ci di la ci nga maslaa ci jullit ba yàlla may na la nga jël mbubbu julli bi simmi toog fële sol mbubbu caay-caay bi comme ñoom jëflante kook ñoom ba toroxal leen daal di dem si jël sa mbubbu julli soog ko continuer moom lii la ñu yàlla may dama ne sama gaay yi Ousmane Sonko déggu leen ma de xam nga jëm nañ ko ci tournage bi ba sonn pour ray ko est-ce que xam ngeen ne yàllaa bañ est-ce que xam ngeen ne yàllaa bañ ak mag ñu baax ñi koy ñaanal oustaz yeeg Ousmane Sonko amul ku ko dul ñaanal xale buy doogu judd sax mi ngi ñaanal xale buy joodu dugg mi ngi ña sama doom yi sax bu ñu xëyee su ma ne leen diw Mouhamed Kaay Fatou Kaay Ousmane Sonko xam nga lu ñu koy yeggale Ousmane Sonko na ko yàlla sàmm yal nekk président ay yu ndaw ñoo koy ñaanal ta xale yu ndaw yooyu ay muminu yàlla nañu ay yàlla nañu lu ñu ñaan yàlla yàlla da koy nangu moo tax xale fu mu la ñaanee rek neel amin yàlla xam na ko tey damay génn sama doom bu am ñettaat billahi wallahi tallahi wa rabbul kaaba su fekkente ne amul live bi yàlla bu yàlla bu ma fanaan damay génn xoolal mu dem jëli ndox mu sedd sotti ma ko ci buntu bi xam nga xale lay gis man dama tiit sax dama tiit sax ma ne ko yee eh, Mouhamed bàyyi li ngay def ba yàgg ba fàttali ko ne waaw man dof naa de man maa ngi waaj a génn ci kër gi ne sotti ma ndox mu sedd maa ngi ko bàyyi li ngay def mu xaw jooy noonu ma ma ma sukk jéggalu ko ba mu baal ma ma dem kon gis nga combat bi yàlla da ciy def sutura gis nga Ousmane ko noonu yi yàlla gëlëmaloon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu fanaanee ca kii ba ba Abdul Mutalik bi euh, ñëw remplacé ko fa ba génn Seydina Muhammad doon euh, tëdd di nelaw yooyu mi ngi fi ci sóortul Yaasin gis nga Macky Sall gis nga taqader yi si nga ni yàlla woon ñay ba tas yaakaaru xam nga saa yi may laay wax leen ko ñaan leen noonu yàlla gàntaloo takader yi gàntaloo takader yi Macky Sall contre Macky Sall gis nga ñi ñoy songi Macky Sall non Macky Sall dina am lu ko bet dina am lu ko bet trop dina am lu ko <gasps> alkaat yi dañ leen romb ñuy garder manifestation mu leen la ñi li ñi def neexu leen neexu leen ndaysan te dañuy son xif mbar man da ngay romb sax may leen ndox ñu jël mais tamit suñu doomu rew lañu alkaati yi bu ñu noonoog ñoom suñuy doomu réew lañu parce que ñoom tamit euh, lu combat bi plus li muy dem xanaa xam lu tax xeex amagul yàlla mooy namm pour pour yee alkaati yi homme de tenue yi est-ce xam ngeen loolu parce que homme de tey seen xol fees na ndax gis nañ ay pas ay lafañ ci ci ci ci ci manifestation bi moo tax gis ngeen xeex bi lu mu yéex yéex yàlla day indi di ci diggante alkaati yi ak askan bi parce que alkaati yi yéen tamit na ngeen déglu seen bopp gis nga Macky Sall mi naan dem leen xeexal ma dem leen rayal ma Marème Faye Sall ma nga ca gannaawam Amadou Sall ma nga ca gannaam di noos dugg ci boîte yi yéen alkaati yi ay doomu jàmbur ngeen mun dem leen rey seen yaay dem leen rey seen sœur yi dem gis ngeen tey la fañ yeeg yu màgget yi ay paa màgget war a toogee seen pli panier am Macky Sall moo leen yëkkati bu gëlee loolu yàlla du ko seetaan moo tax am da tan yi am da tan yi àndaleen ak seen xel te xam ne askan bi seen njaboot la seen yaay la te ñun tam seeni i seen i yaay lañu am da tan yi déggu leen ma de su ngeen meree ci manifestation yi bu ngeen maree naan ñu ñoo leen di may ndox de bu ngeen sonne ñoo leen dimbalii dimbali de kon noonu ñuy def nag yàlla na cofeel ak yërmande gën a dugg ci seen biir ba bés Macky Sall ñëw wax leen ngeen gàntal ko attaqué ko toroxal ko yàlla na ko yàlla def ci barke leeru Alxuraan karim te incha allah dina am Macky Sall démb xaw ma barke démb dégal naa la Alxuraan karim ne la bàyyil Ousmane Sonko Macky Sall bàyyil Ousmane Sonko Macky Sall bàyyil Ousmane Sonko te nga yeewi xale ci kaso bi Macky Sall bàyyil Ousmane Sonko Macky Sall ah man de Ousmane Sonko kep ku koy wolu jëlal juróom-ñaari mètre parcal ken du ne kenn du ne ummi waxon nako de xawma xamone nako de jëlal juróom-ñaari mètre parcal nga tok ci fekke da nga tok nga tok ci fekke da nga teud nga ndega nayo ta nga mirage sa bopp Ousmane Sonko kep ku koy wolu di yekati dossier pour te dossier di katch ay fan saga dox ba tass indi ay dossier teko pour tout mal gor pour mal nitu yalla jëlal seeni perkalian ngeen tok ci man kay ma leen wax li luma gis luma yek luma tek ci alquranul karim jël leen seen perkal ngeen tok ci xam nga Ibrahima Gueye dafa dafa ne képp ku tej Ousmane Sonko mom tej la wax tej ku ko tej sa jabat dina la man dede waxuma tej de dama ni képp koy jëli Ousmane Sonko wala kep ku koy joxe convocation pour mu ñew del sa jabar rasal sa bop te nga jël sa perkal bo toge ko tok ci yok man kay lu leer la leen wax lu leer la len wax yeen li faq seen beut bët len bu demé ko touru Ousmane Sonko bi ray bi ngeen digalé won signé ko tek ko pour def ko ko ci ko tour bi amul ngeen xamni yalla amna, ngeen xal xam ne yàlla ñaan yi mu diglé ñuy ñaan yalla ngeen nangu ñaan du nee ngeen tubaab yi ko jaral Macron mo sek ko jaral kenn du ci am jàmm idriss sek, mom dofna mom mom parana ci adina idriss sek ko dofna idriss sek kata kay ni na dof Idrissa Seck kata kay ni dofna na dof na Idrissa Seck il est fou dofna parce que tamit mëno jël alalu aduna askan bi 2019 bi ngeen nangu ci loxo Ousmane Sonko balaa 2022 bi ba 2024 balaa mandat bi di jeex yéen ñëpp yàlla dina leen teer ci laal déggu leen ma de neena ñi dinañ dof ci mbedd mi ñi dinañ bu médecin taxaw war leen mëna fajj ñu am xaalis pour fay ko mais duñu ko duñu gis bi xam nga ñun neewru doole yi amuñu luñu fajo mais yeen da ngay am lu ngeen fajo te kenn du leen mëna faj gis nga ñu def journal la dem ba dem ba france kenn mënu ko faj gisuñu febar bu ñu naan ay mystique ma dañuy set ci sëñ kooku jéxal na kenn mënu ko faj mbono ma wacc ci kaw waxon na leen yeen yalla dina leen teeru ci lal benn par benn yàgg naa wax sénégal yi bu ngeen xamul li men xam billahi di ngeen tok gouvernement Macky Sall bi ci la ñepp kep ku bonon di bayyi bon kep ku doon bëgg bon di nga bayyi bon yàgg naa ko wax yàgg naa ko live man duma xamoon nako waxon nako la yéen yàlla dina leen tër ci lal benn par benn Ousmane ngeen yegg paa yi ngeen jógloog la yi ah ngeen war a xam ne jeexal ngeen manifestation bi ma su fi am te kanam nag la jëm kanam la jëm manifestation bi kanam la jëm ma leen wax ni ndeysaan tey dama gis ci euh, ndegate Macky Sall am na benn euh, homme de tenue bu mu simmi toroxal ko xam ngeen lu mu ko simmee kara wa Barthélémy Dias di wuy ji ànd ak Ousmane Sonko homme de bi bëgg na ngeen euh, jël dinaa dugal numéro ci réseaux sociaux yi pour ngeen duggalal ko ndax sonu na dafa ñew tax ci manifestation bi tay Macky Sall daf ko toroxal ci ko ndax lan ben acte bu mu def ci affaire wu Barthélémy Dias ba muy wuy ñu ne lu tax mu def lool ñu simi ko dakk ko tay sama yaram dafa daw ba ma ko gisee taw am de ki la Euh, amul loxoom jotul ginnaawam te am na soxnaam te soxnaam am na yeneen ak yeneen yu mu soxla te mënu ko am comme ni ñuy def capitaine Touré noonu lañ def homme de tenue bi dañ ko toroxal dañ ko wàccee loolu bëgg naa di ji jot ci ak att na ton pour ñu dimbali ko ci defal ko ci ndimbal parce que sonn na de jeune la xale bu ndaw la jàppul ci dara sonn na ndeysaan dafa sonn moo tax tey mu wax waaw homme de la dañ ko simmi bi Barthélémy Dias di wuy ji benn at daal la def xam mom lañ dafa bëgg sonko ba tayu ko benn acte dal la def gis sonko xawma dafa rétan xawma dafa ki dal ci loolu lañ ko simmi ci loolu lañ ko simmi motax bëgg na diji ak Akhenaton ñu dimbali ko def ci ben cop express wala ñu jël numéro joxe ko lu way am ngeen dimbali ko te yàlla tax parce que sonna na torop xalé bu ndaw la gis na ko xalé bu ndaw la te jabaroo xalé la te neena loxom jottu ginnam ta te yaayam dafa dañ ko dàq joxuñu ko tous tous tous xana loolu ñu pini ko sax tej ko 15 jours wala 15 jours ñu bayiko mu genn mais dañ ko dàq xale bi dafa ñëw foofu jaaxle tey ci ci manifestation sama gars yi boo xettalee sa moromu jullit yàlla xettali la boo dimbalee sama moromu jullit yàlla dimbali la kooku dinañ fexe numéro ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi wala ñu jox ko atanu toll wala ngeen dimbali ko lu waay am bu leen xeeb dara dara dara dara ngeen dimbali ko tax yàlla tax sonn na de wallahi lazi laa ilaha sonn na moo tax ma laayif na trop trop jeune la sonn na waaw acte bu mu def daal moo tax ñu dàq ko ci affaire de Barthélémy Dias bi ñu ko woowee ma nga nee toog liggéeyul mais nag du ci bii de ci bële la woon 6 mois nee na mu ngi toog liggéeyul dañ ko simmi 6 mois mu ngi toog liggéeyul moom wa Damboj Damboj da koy wax sax ci kiiwam Damboj waaw bu ngeen rappelé Damboj saa yi ñu ko invité da koy wax benn homme de tenue bu ñu simmi rek chaque jour da koy wax tey nag xale bi dafa sonn ñëw ci manifestation bi loolu war ngeen ko taxaw ngeen dimbali ko te yàlla tax incha allah dinaa wax Diji wala Akhenaton ndax man xaw leen mais ngeen yeggee ko ko yéen ñi xam ñoom Diji ak Akhenaton euh, ñu defal ko dara daal pour ñu envoyé leen numéro xale bi ñu dimbali ko parce que sonn na trop xale la te et puis dafa tollu ci am te dafa am soxna am lu bari lu ko war neena soxna ci dal koy laaj mu ne amut lolo tax mu sonu tay ñew ci manifestation pour yeklu pour ñu dimbali ko to waaw nañ leen ko dimbali dal ta yalla tax parce que combat bi li ci Macky Sall lor ci gis Ousmane Sonko ré ko sax mu simmi la boo dee homme nga gis Ousmane Sonko nga rétan ko rek mu la policiers yi ñu sax def profilé Ousmane Sonko bokay def mu lay dàq toroxal la kon donc nañ leen jappalante ta jappalé xalé bobu waaw Ousmane Sonko nak le 29 bobu ñuy wax mané patrouille patriote yëpp lañu wàcc si Dakar gu leen ma dé na Dakar fess del del del del Ousmane Sonko képp ku ko wolu fa mu toog bu mu fa fanaan képp ku ko wolu budé dee bu mu fa yendu budé ko guddi bu mu fa fanan motax mané na patrouille yëpp ñu wacc ci Dakar fess fi del del del del dama ne peuple bu joggé moo mun arme té gouvernement bi war nañ ko gëm té gouvernement bi war nañ gëm ni ñaan amna bës bu ñu yone taqadeer yi ko gis moo gis gis parce que taqadeer yi ñaan moy wëlbati seen xol am tiofel digënté ak askan bi war Macky Sall lu leer la leen wax lu leer la leen wax taqadar ñaan moy wulutik seen xol ñu am tiofel digënté Ousmane Sonko ak askan bi bëggënté am tiofel am foofu ñu wëlbeetiku ko attaqué Macky Sall ñaan mo koy def te inshallah ñogi ci déggu leen ma de motax mané doore alcorane xale tout tuut tànk yi nañu yeneen 4 h du matin 3 h du matin ñu ñaanal askanu Sénégal yalla yàlla dooleel leen ni yàlla rofé gant te ñay ba yalla ko yàlla rofé ci alkat yi ak merdier ñëpp ñu betuku, am ñeewantal ci askan bi and ak ñun war Macky Sall te ni lay démé ndax Macky Sall dañu war ndax tubaab yi ñaan bi bu ngeen ko ñaané day am lu leer la leen wax lu leer la leen wax ci alquranu karim la ko tek ku bon war warkat du am lu do du am résultat bu bax te Macky Sall war na ko xam Macky Sall xam ngeen tay mom luñu wax tay Ousmane Sonko fa dem xam nga luñu leen wax <laughs> non ñii ñoo soxor ñoo iñaan ñu dem ne waa gox boobu Ousmane ko entré leen ko ci kër gi bu leen ko bu leen ko entré ci mbedd mi que xoola mm-hmm. mbooloo mi la ñuy bañ dañu soxor ko gis mais ñoo ñoo mat faale wuñu leen dañ na Ousmane Sonko foofu mu jëm si tey nañ ko entré ci biir kër gi bu ko bàyyi ci mbedd mi pour nit ñi bañ ko wër non iñaan iñaan baaxul iñaan bu la rayagul iñaanagoo te iñaanu gouvernement bi ma gis seen iñaanu dëj lay doon iñaanu dëj dëj lay doon seen iñaanu dëj lay doon imaginer di topp ni di topp ni ba sonn yàlla bañ léegi nga woowaa dëkk ba ne Ousmane ko di ñëw foofu bu leen ko entré ci bi ci ëtt bi entré leen ko ci biir kër gi bu fa kenn dugg entré leen ko ci biir kër gi pour mboolooy yi bañ ko war ci biti non soxora bon te ñoom ndeysaan lu ñu def gaa yi weer leen lu ñu def mu senn jéem nañ ko rey ci tournée bi ba sonn yàlla bañ te yal na yàlla yàgg bañ wallaahi dangeen dëgër bopp da ngeen bob, bopp mais bu ngeen sama live yang gouvernement bi di déglu sama kaddu yang a ngi ciy teg seen bët benn benn par benn mais da ngeen a dëgër bopp. léegi ngeen du ngeen mana Ousmane Sonko man dama ni man duma ci wax dara de dama ni jël leen seen percal ngeen jënd ku ne jënd juróom-ñaari mètre percal nga miiraat sa bopp. nga miiraat sa bopp ndax Ousmane Sonko mi ngeen a dee bi mooy këpp seen kaw parce que bu ngeen bu ngeen ko gëm ngeen ni saa yi ngeen ko Eh, pexe wóor ko pexé ñu dégg ko kon ngeen wëra gëm li ma leen wax képp ku complot pour Ousmane Sonko ko convocation bi yobul leen ko mm. ah, xoola du ngeen am li ngeen bëgg yëkëti ngeen Sénégal pour Ousmane Sonko mm. jël leen seen perkal ku ci ne na nga wax sa jabar sa doom lu mu wara am ci yow man kay dama leen wax lu leer xam nga Ibrahima ngay leen ku ku Ousmane Sonko mom ku tëj la wax sa jabar dina la tëj man nak da waxuma tëj dama ni pour pour convoquer ko muy ñew wala ngeen ngeen da ngeen koy dogal rek xalé pour jël ko duggal ci auto comme ni ngeen fi defoon mm. dem la jënd seen i dem leen jënd seen percal man tey lu leer laa leen wax am na fu leer fu ma ko teg am na fu leer fu ma ko teg Sénégal taxuñu réewuñu Sénégal ngeen di gis xam nga réew yi vangé yëpp Sénégal Sénégal le la réew bu des ci Sénégal ngay jëlee leçon ci Sénégal ngay amee fit man maa leen wax ci lii di ñëw non Sénégal dina neex ku doon jooy di nga tàcc di fecc sa bopp te kenn du la tàcc Macky Sall <laughs> allahu akbar non régime bi dañuy tàqali koog moom incha allah ci kàttanu yàlla incha allah dañuy tàqali koog moom de ni ñu yaakaar ni Sénégal yi dañuy dee oto yi di recruter di wut ay policier xoola yàlla da koy wëlbati seen kaw policier yi ñuy indee yëpp ay yàq la xoola ñoo ñoo koy contre attaque dañ koy contre attaque xam nga yàgg naa leen wax Macky Sall boo demee Union européenne na ma jaaxal trop xamna nak yaangi préparer pour daw wala préparer pour coup d'état mais préparer billahi wallahi tallahi rabbul kaaba lolal yalla lal ko man maa wax ni sa trace Macky Sall yalla gantal na la wonal ginaaw wonal wonal ginaaw bu gantal na la gantal na la nga Ousmane Sonko fitna fi nga ñu Ousmane Sonko nga dund <laughs> no allahu akbar kat bu la ko wax kàcc na kat bu la ko wax dama ni gouvernement Macky Sall yéen la wax cat ba cat kep ku bok sa loxo ci Ousmane Sonko pour ñu pour ñu provoquer ko dem ñu yóbbu convocation bi dama ne dama leen wax lu leer de maa ngi koy bant ko wa jënd leen mètre per carré juroom ñaari mètre per carré jënd leen ko bu fekkee da ngeen a tok toog leen ci su fekkee dafa fekkee tëdd tëdd njëgën man ma leen wax du ne ngeen du ngeen baye Ousmane Sonko général Fall dootu ko nekk netal Idrissa Seck mom dofna mom dofna carrément ma leen ko yëgal Idrissa Seck dofna carrément xana mu faj mu faju tane nak nee nañ dof mom dof dof mom rab yee jël conseil du wér Idriss rek xawma koy waxu Sonko ay du ko wax de 2019 and ak and and ak ñi sacc wërsegu Sonko ànd ak ñi sacc euh, Sonko ndam liko ko may mu ne day am jàmm <laughs> allahu akbar déggu leen ma de 2024 bi kep ku lek ci ndamu Sonko ah ci kawlal ñi bar sax ñi ñi ñi ci hôpital yi ñi di taxawal ci mbedd ñen dem ana Mamour Diallo dalis par semaine parinya par ñett fan an mo ma nga Angleterre daw na ay ca nañ dem Ken wëru ci ken wëru ci dañu ñak jom me ken wëru ci te kanam la jëm nak yeen ci kawlan di ngeen fa yag lool tay torox di sap na kom kom xaj dañ ni sap kom xaj sukura bu bon mo molen mo leen fa yagal yeen xale yi ngeen ni te ci kasso bi luñ fay gëna yag yeen ni gëna torox loolu moom ngeen bayiko xel senegal buñu xamone man lima xam allahu akbar dañuy yor seen micro toog di xaar sama gars yi maa ngi leen di ziara li ma leen wax daal mooy le 29 patriote yëpp nañ wàcc si Dakar dëkk bi àll bi village yi yëpp nañu wàcc si Dakar nañ wàcc si Dakar li ma leen wax rek ku mën a saraxe sa perkal nga saraxe ngeen ne Macky Sall doomu kumbati Tiborobe Sall euh, militaire yi muy recruté ak homme de tenue yi merveilleux yëpp ni mu bëggee dëgg suñu dëj perkal bi yàlla nay perkalam wallahi saraxe leen lii perkaal bi yàlla nay perkaalam perkaal bi yàlla nay perkaalam ngeen xool <laughs> allahu akbar perkaal bi yàlla nay perkaalam ak perkaalu gouvernement bi ñi bëgg a dëgg suñu dëgg yàlla nañ dëgg seen dëgg lu leer laa leen wax lu leer laa leen wax bu leen ko gëm nag mais ngeen bàyyi ko xel dama ni ku ko mën bu leen neexee ñëpp bañ ko def mais ku ko mën dama ni jëndal sept mètre per mètre percale nga dem sarax ko ci morgo ba nga ne ku néew bi fi njëkk a jógee sarax naa ko ko te yàlla rek a tax ngeen ne percale bii ñuy saraxee Macky Sall bëgg dëgg suñu dëj recruter ay nervi recruter ay homme de tenue yal na ko yàlla gàntal na mu gàntaloo woon ñay ba yal na yàlla gàntal ko ñi képp ku Macky Sall yaakaar Macky Sall képp ku mu yaakaar pour mu xeexal ko yal na yàlla gàntaloo ñu Macky Sall war Macky sàll percal bi Macky Sall nim ñi ñu deug suñu deug yal nañ deug dëjëm ak gouvernement am ngeen dem yóbbu ko ci morgo ba ngeen xol kenn du yalla yalla du kenn sarax bobu sarax ta yalla tax la lay wax de saraxuma ko pour njabar saraxuma ko xawuma dara munuma dara jam la buy toroxu sama kanam borom jam la bu tak bëgg sama borom setal ma jam la bo xamantene ne munuma bëgg sama borom mayma yusundur nak Ndour nag ak a ñor kooku mu Youssou Ndour moom te muus Youssou Ndour est-ce xam ngeen ne du ànd ak koy daanu du ànd ak kuy daanu de Ndiaga Ndour mi mi mi Macky Sall tey xam nga lan la ko def da koo rendre hommage da koo da koo da koo jox benn image da koo jox da koo sànni benn image. xam nga Youssou Ndour ak Macky Sall xuloo woon nañu fi ba madame Say Faye Sall naa yee yaay dégg naa invité ko añ pour jubale leen Youssou Ndour du ànd ak kuy nga nit ki li nga la la yàlla fay xam nga Youssou Ndour da doon xeex Ablaye Wade non troisième mandat. léegi Youssou Ndour ngi xeex nag kii Macky Sall non troisième mandat parce que dafa muus xam na ne lebalu sénégalais yi lu baax xam na ne Macky Sall day jeex léegi nag muy muusantu seetlu leen Youssou Ndour fan yi télé bi dañuy défendre Ousmane Sonko ñu ngi commencé soppi changement Allahu akbar non ñi ñooy bandi dëgg dëgg dëgg ñi ñooy bandi ñi ñooy bandi dëgg dëgg dëgg dëgg ñi ñooy bandi waaye di ngeen xam ne fii ngeen ñuy fekk Youssou Ndour fu mu toll nii day attaqué mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi noonu kii de mi ngi noonu noonu Macky Sall de moom du ànd ak kuy daanu léegi nag Youssou Ndour àndul ak Macky Sall ci troisième mandat bi te Macky Sall képp ko àndul ak moom troisième mandat yaay noonu. léegi nag Youssou Ndour moom troisième mandat bi ba pare delluwu ci ginnaaw nag léegi nag Macky Sall jàpp Ndiaga Ndour war na ko yow say dossier ngeeg man soo àndul ak man dinaa la tëj dinaa sa kii léegi kii Macky Sall loolu la loolu loolu loolu message boobu la sal Youssou Ndour pour pour mu nànd mais Youssou Ndour ba tey faalewu ko nanguwul Youssou Ndour moom ba tey nanguwul troisième mandat beneen bi mooy. ma wax len ngeen meuna gem gis nga Macky Sall fu mu tolni xex xeex bi moom da ci wet man ma la wax ni Macky Sall kep ku ko ni won waw di nga ne ko dit Macky Sall xex bi da ci wet de gis nga ni mu recruter arme bi mu jël ñepp koy wor ñepp koy wor Macky Sall li koy toroxal nga ca palé ba Macky Sall li koy toroxal nga ca palé ba xam nga dafa am malaka bo xamanteni malaka bo xamni mo yor ben mbib la yor ben mbib ba aduna soso ba tay mi ngi mbib bi kañ lay mbib mbib boobu bu bu àdduna du tukki lay mbib mbib bu ko mbibee rek àdduna tukki rek ba su la koy mbib 5 heures xam nga àdduna aqulu zaman buy ñëw àdduna buy tukki bésu àjjuma lay tombeel àjjuma lay doon àjjuma moo gën ci bési bés taxawaay bés lay doon léegi nag malaaka boobu bu yëlee mbib bu ko yàlla moom ndigal lay bu ko yàlla ne corner rek aha àdduna ak yëpp dara doot fi lépp lay rajaxe am na malaaka yoo xamante ni dañoo sujjóot ba tey ba tey jëndi euh, jóguñu sujjóot boobu ba ilaa yawmi din ba tey jóguñu moo tax nag Macky Sall nag pour wax leen ni firnde Macky Sall ñi àndoon ak moom ñëpp wan nañ ko gannaaw moo tax man la Macky li koy toroxal nga ca pare ba kooku xam nga lu muy xaar xale yi ne wóop pour moom ay mbokkam la teg ci wetam mais lu mu teg teg ci ay mbokkam am na mbokk yoo xam ne dañoo dëggu am na mbokk yoo xam ne dañoo dëggu même bu ñoo dëgguwul sax day am koo xamante ni yàlla mooy sol ci xel mi loo xamante ni da koy fay mbonam xam nga léeg-léeg nga am sa noon sa doom waaw am na léeg nga am sa ba pare sa doom ci boppam wulbatiku sopp sa noon xaritoog moom looloo doon Macky Sall non Macky Sall li nga lebal Sénégal tuumal ko ay gor yak ko ay deru gor turuk tëri ko ay gor Macky Sall ku taxaw kat bu taxaw ne la di nga am ndam wallahi katchna katchna de jabar de kay lim lay wax muy deug moy bayur Ousmane Sonko bo bàyyiwul Ousmane Sonko fokoy wolo wóoloo sa juróom-ñaari mètre percal nga tek ko xaar sa jabar kat bu la wax lolum xamal ni koku ku meun la deug la mais nga ne yaangi bundu xatal Ousmane Sonko ci ko suuf yaangi am ci kaw jam dedet yalla bindu ko ci alcorane te yalla lu mu bindu ci alcorane du ci delu gannaaw du ci dellu gannaaw Macky Sall yaa ngi noonu ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko du sonnoon Ousmane Sonko du sonnoon dafa sàlloo ci koy Muhammad sallallahu alayhi wasallam Macky Sall kii sonnoon mooy Moustapha Diakhaté ki la dàqaloo Ousmane Sonko ba indi la bi yow kooku nga war a toroxal Macky Sall kii sa noon di la di la di la poisonné mooy Mamour Diallo moom mu teg na gis xam nga toog xuus si di seetaan te naan yëguma te ciy gën a xuus. Macky Sall imaginer jël ay kat nga ni yaa ngi leen di placé ci gouvernement bi Macky Sall ak kat do ko tej Macky Sall jigen juy jaay bopam do ko tej Macky Sall raykatu nit do ko def lu bon wax lu bon do ko tej yow dal ne nga kep ko meuna tej moy ki taxaw ne gemna yalla ki taxaw ne ibna naa daaray ki taxaw ne jàq ji ki taxaw ne Ousmane ko bëgg naa ko ki taxaw ne Ousmane ko mu sell mi ki taxaw ne askan bi laay xeexal ndax dama leen a bëggal jàmm ki taxaw ne sunu source yi nañ leen fexe jot ci ndax Sénégal riche ñii daan ngay tëj ñii de moom mën nga leen di tëj moom ak ñiy woote ci diine yàlla gi ñii moom mën nga leen tëj waaye ñi nga xam ne vayu bandi assassin dictateur mervi ak raykatu ak ku la gën a rancunier kooku doo ko tëj waaye nag yàlla gëmul nelawul yàlla gëmul nelawul yàlla gëmul nelawul ku yaakaar ne bu guddee yàlla day nelaw ndax nga sa bopp yaay nelaw trois heures du matin yi ngay recevoir yëpp di tëgg say ndëgg sërëx say complot yëpp xam nañ ko Ousmane Sonko mi ngay topp ba ci hôtel ba hôtel ba mu luyeeg yëpp xam nañ ko hélicoptère da léegi moo mooy tourné di wër Ousmane Sonko hélicoptère waaye yàlla tey seen loxo hélicoptère bi xam nga lan la pour tiire tiire mercenaire tire mais ne yalla téye loxo ilaha illallah maki Sall ben batu yalla bu gën tuti la lay wax sooy génn nga ne tawakkaltu ilallah wala hawla wala quwwata illa billah azim gis nga loolu yalla mo lay garantie ni nga deme ba ni ngay ñëwee mo lay garantie soko ko ba la nga genn sa kër lu luy lore da lay daw lépp luy lore da lay daw te lépp luy jóg pour fitna ci yow yalla du koy gëlema xana kon nak maki Sall mënoo dem nak aji yalla dama ci kaw asaman nga aji yalla ne ko bàyyi mam ak sama sago dawal wallaahu yaqsimu ko minan naasi wallaahu yaqsimu ko minan naasi Macky Sall keroog ba saxaaba yi doon garde eh, seddinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su bàngoon guddeeg bëccëg di ko garde Jibril indil ko aaya boobu wallaahu yaqsimu ko minan naasi Seydina Muhammad sallallahu dafa xëy di dem saxaaba yi topp ko mun leen jeex na yàllaa may garde wallaahu yaqsimu ko minan naasi bu ma kenn gardeeti Macky Sall bat bobu mi fi wallahu yaqsimu ko min al-nas wallahu yaqsimu ko min al-nas ko boo xëy ñetti yoon dem sa yoon <laughs> ku lay bëgg ray da xana mu jaar mu jaar ci yalla tàggu yalla waaw xas bu ni man waqilu wallahu yaqsimu ko min al-nas mais qasbuna la ni man waqilu qasbuna la ni man waqilu kese kese kese xam nga nu muy mel ma jox leen exemple comme manam neeg bo dang ko kasse ak béton du am buntu du am dara yow mënoo xam li ci biir neeg bi asbuna laa man waqiru loolu lay jeriñ doomu adama bi koy saxu day blender sa yaram comme belu tanks ku lay jéemal laa day delu ci comme asbuna laa man waqiru loolu lay jeriñ falakh ak nasi qul huwa allahu ayatu kursi bepp njabar guñ lay def du yegg ci yow da koy da koy rejeter ba para da lay garanti jinne chat syaitan lepp lu lay lor day daw kon dama Macky Sall gannaaw Macky Sall boo dellu ci ginnaaw Ousmane Sonko bi nga bëgg a woo ci octobre bi novembre octobre waa novembre bi <laughs> Ousmane Sonko di ko ko woo octobre xaw ma novembre est-ce que octobre dina la fi fekk est-ce que octobre dina la fi fekk ay te nañ dem patriotes yi na ñëpp wàcc si dakaar na ñëpp wàcc si Dakar na wàcc si Dakar na ngeen ko waxante seen biir na ñëpp wàcc si dakaar mu ñuy waajo Ousmane Sonko na ñëpp wàcc si Dakar na ñëpp wàcc si Dakar na Dakar fess dal dal dal dal na Dakar fess su fekkente ne ay policiers mën nañ tëj askan peuple ay ca bismillah xam nga tay dafa am ben ben ben cadre bu ma dégg ci ay groupe sama groupe njabot parce que askan bi sama njabot nañ ma ngi dégg ñuy wax nan non non amna ño xamni ñewuñu mais nee nañ parce que tamit ñoom nee nañ dañu toog pour bàyyi xel Ousmane Sonko tourné nemmeeku tuuram nee nañ am na ay jeunes yu wax loolu nos jeunes yee yeewu waaw parce que xam nañ ribaru manifestation bi ñoom tam nee na ndekete jeunes yi ndekete ku ci nekk te kooku ba mu koy wax maa ngi ko gis muy wax whatsapp beeg téléphone nga xam ne kon ñoom ñu ngi jeunes yi ndekete ñoom non jeunes yee garaaw dëgg dëgg dëgg xale yee garaaw xale yi dañuy xalaat foo xam ne seen yaay sax duñ fa xalaat dama taxaw di ko bàyyi nopp mu naan non non non dafa am ñoo xamanteni ni ngi sur le terrain dañuy bayyi xel Ousmane Sonko bi motax mënu ñu ñëw ci manifestation bi mané ah, ah kon xal yi ndëkkati jël nañ affaire bi au sérieux ah. sama nopp mako may la wax la ilaha illallah no man mosuma gis li no xal yi yew portable la dégg mako koy wax na no sama waji no am nañu nekk ci terrain bi parce que dañuy bayyi xel Ousmane Sonko nee ñëmé ko touram bi daal motax mënu ñu ñëw ci ci ki bi ci manifestation bi gis nga bi waji bi koy sama xol sedd na mais ba gessu nan ko allahu akbar dama ci dama gessu rek ne allahu akbar am nañuma xol mané mané mané mané ndaw waji yow loy wax ni mu mama ñun <laughs> Ousmane Sonko duñu ñu ko kafee de ñun suñu projet bi du ko kafee de yàlla xam na ko li la wax. li la wax non jeune du Sénégal ñoy yew jeune du Sénégal yalla yalla sam sàmm leen yalla na yàlla garanti leen yalla na yàlla suturaal leen Macky Sall non Macky Sall am nga liggéey am nga am nga problème de série Macky Sall sa li sa sa problème bi di nga ci wedde di nga ci wedde man day li ma lay digal mooy en tant que yaayu askan bi di dox jàmm di wax jàmm bàyyil Ousmane Sonko man loolu laa la mën a wax de Macky Sall doomu Koumba Birame Sall en tant que yaayu askan li ma lay digal mooy ak sa bàyyi leen Ousmane Sonko xale yi ndekete ñu ngi bàyyi xel Ousmane Sonko de imagine tey lu toll ni euh, manifestation ma dégg xale bi di wax ci portable yi mu leer ni la xawma seen groupe la xawma na non non ñëpp mënuñu ñëwandoo parce que am na ñoo xam ne nee na ñu ci terrain bi dañuy bayyi xel nemmee ko touru Ousmane Sonko mané ha ah, man dal bima wax allahu akbar tayuma ko mune mama ñun dañuy liggéey ñun fontu wuñu suñu Sénégal fon fonk wuñu de non xali ma sha allah sha allah yalla yalla gudda seen fan li ngeen xex yalla ci yalla may ndam te gëm di ngeen am ndam ah Macky Sall <laughs> ah dem na rafet de ah way da ko rep na wax deug yalla mu mëno ko waxam dégg mang leen ziar di leen ñaanal jamm di sakku seen ñaan te ngeen baye homme de tenue boobu xel Macky Sall amna na homme de tenue bu musimi ci problème de mak euh, ki Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ba ñi wuy ji police bi daal amna na benn acte bu mu def ci nañ ko simé ba tay mu sonn lool nak waaw mo tax daal xamna djiji ak atana atanaton ndax man xawma leen ngeen fexé wax ko lolu inshallah dinañ duggal numéro pour daal buñ ko mëne dimbali inshallah parce que daal simbi nañ ko te et xalé la loxom jottu ginnaw mané patriote yi andalen yar ak teggin xex bi yalla duggal na ci loxom Ousmane Sonko waxante len ko seen bir patriote yëpp nañu wàcc si Dakar inshallah nañ wacc ci dakar neme ko touram bi lañ bëgg a mais inshallah ni ñepp wàccee ko Dakar ba nga xamni ne ku ci ku wo Ousmane Sonko convé ko di nga reccu li nga juddo ci kaw suuf di nga reccu li nga yoree nguur ci kaw suuf di nga reccu li nga atté ci kaw suuf di nga reccu li nga doone magistrat wala avocat lu leer la len wax sama gaay combat continue bu len tit bu len ragal bu len tit bu len ragal boobu ba tey redoublé na te duñu mës a redoublé ci kaw suuf Ousmane Sonko dañu defe ni dinañ ko jël jaar ci kaw néew ñun ñooy jaar ci kaw ay néew te lu leer nag laa leen wax gouvernement bi carte gi dina ko de li ñuy yaakaar ak liy am ça fait deux ça fait deux France moom mooy woo nañ Ousmane Sonko tàqali ko nañ France tàqali ko nañ gouvernement bi man kay lu leer laa leen wax nee nañ la gis lépp ak xam lépp di wax lépp baaxul déedéet ndaxte booy gis lépp di xam lépp di wax lépp yàlla danaan sama jàmm bi daf may jiitu si sama sama sama sama suba mel ni moom a gën a xam te loolu laay bañ loolu laay ragal ndaxte sama live bi mu yegg sax yàlla la neex kon maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm yàlla yàlla defal nu jàmm may ñu wér a gudd fan defal nu sutura xéwal wërsëg komba bi yàlla may nu ci ndam ci allahuma rabbi allahuma rabbi allahuma rabbi zu jara wa iqrab rabbu samawati wal ard yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa ahadu yaa samad yaa rabbu samawati wal yaa zu jara wa ko ni jant ak weer ak biddew sore doomu aadama yal na ko sore ay noonam Ousmane Sonko yal suñu borom ni Jibril Ousmane Sonko bëgg naa ko sama jàm bi dëggu na maanu na ragal na yàlla bëgg ko yëg ko asamaane malaaka yi ñu bëgg ma tàbbal ko ci yi yal ko yàlla defal Ousmane Sonko Ousmane Sonko yal na jubóog borom ba lu mu ko ñaan may ko yàlla sàmm ko aar ko ci baatu pas bu na laa ni man wax lu Allah si ma ko benn naas ci sallallahu ala askanu senegal diaspora mudu mudu yalla yalla garantiñu ni ñay ni yalla gantolo won ñay ya, ba ci abraha yalla ko yalla gantolo takder yi ak mervi ak eh, alkati yep yalla len ko yalla gantolo ci Macky Sall yalla ñu wëlbeuti ko wor Macky Sall ni ni Macky Sall woré ya yalla ko takder yep wor yalla amna ko mën na anu ko ya def ci sallallahu alaihi wasallam te li ma len wax inshallah ci kat ne yalla bu yalla changer wul da la wax ndax ñamewuma yalla dara du ci deñ ci len live bi te diko deglu ngeen xol li ma len wax waxon na fi tuddal len ay tur ter ci kanam Idrissa Seck Général Fall du ñu ngi ci Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen ñu ngeen xamul Farba Ngom wéerul de mané yeen yeen tok len rek seen xol dina sedd de déggu len ma de di ngeen tok seen digg lal di tacc seen bop di fecc seen bop lima gis ci gouvernement bi ñemew ma yalla di wax waye ni kon dina len ko waxal a a a a a te lu am be a a a te lu am nak waaye wuñu nonu yalla assalamu alaykum rahmatullah maa ngi leen di ziar ñu fanaan jàmm ñi nga xam ne dañuy doog a xëy ndax heure yi yemul yàlla nañu xëy ci bisimilah wàcc ci alhamdulilah rabbil alamin ñi nga xam ne moom ñu ngi ci guddi yàlla nañu tëdd ci bisimilah yow ci alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah en tout cas bu ñu woowee Ousmane Sonko rek na patriote yëpp ñëw fees dara Dakar nga xam ne moom keroog nañuy tàqali kooku incha allah suñu naqar salaamaaleykum wa rahmatullah